ngay teg di dem alors fekk yow danger ngay def waaw euh, bu ko defee euh, yàlla tere day xëy suba rek daal di daal parce que ay weñ yi war a jàpp tax dafa am euh, seen seen seen dafa am ni ñu war a dëgëre dañu am ay dimanche weñu tabax buy dem ba trois étages dafa am weñ ñu fa war a def terrasse yi dafa am nu ñu ci def fondement bi dafa war am nu mu war a mel bu fekkee ne yoon nag da ngay yëkkati rek te yooyu yëpp kenn contrôlé wu xanaa yaa ngi tabax rek alors lii lay jur te yi waxuma la Touba de mais dafa bari si Sénégal même Dakar moo tax war nañu gën a bàyyi xel si ñii di tabax nit balaa nga yëkkati même bu dee terrasse balaa nga yëkkati lu toll lu mel ni premier euh, étage wala deuxième war nañoo ñëw ñu xool ko expertise bâtiment bi xool ko ndax lor na tegu loolu wala war tegu amee te màggal bi nit yi ñëwaguñu feesaguñu si dëkk damay wax ni lii am lii signal la alerte la Touba dafa am yenn yu war fi am ndaxte boroom daf ko fàggul Touba dëkku jàmm la du dëkk bi nga xam ne bi musiba daf fay am loolu mooy wax bi boo gisee lii am ni tey jii balaay nit yi di ñëw am na lu fa nekk waaye nag